bàyyi ma jéem kañ boroomi may yuréyi yaa Cheikh Tidiane sëtu yónneen Chérif mayam yërëy naa bismilaayi ma jóg kañ boroomi may yuréyi yaa Cheikh Tidiane sëtu yónneen Chérif mayam yërëy naa ma juddoo aynu maa di cëréewi Aljazaïr yàlla yóbbu ko Maghrib mu tëdd Faas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 بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم خدام الطريقة التجانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي نيو مبكي في مجموعة بيب دي نيو سنو sang bi ci buntu bi al ustaz bab makhtar jeng ak sunu sang bi ci dess di al ustaz abdul aziz nyan wala abdullah nyan ak al ustaz eh, eh abdullah njay ak sunu bayi musa lo di ko ziyaar ak sunu mbokk mi sëriñ Maodo Malick Wadd fa tabaarakallah sant wi rek moo xaw a doy waar Cheikh Ibrahima Diop ak sayidi al oustaz al Fahim Diallo ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di nuyu mbokk yi nekk nekk ci majmua bi yépp di leen baluwaq di leen ziyaar mu mel ni tey ci lañ waroon a def سنو نيار فكيلو بند ak ñett ci سيرة سيدنا القطب المكتوم والبرزخ المختوم أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه صاحب الختمية والكتمية والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورى بالختم والكتمان وهما الأساس لما, لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيضان فامدد يدا منها إلي تفضلا واردد بها وجدا بلا حسدان ما بال مثلك بالإباء وقد غدا يزهو بأدنى جودك الثقلان فالدهر دهرك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كفتي ميزان دي غورغو تيد di góor gu amul moroom fa euh, xam naa dañoo ñëw fekk ci benn vidéo mu am masala bu ci posé boo xam ne faw ñu leeral ko waaw daanaka sax mbokk yi xam nañ ci xam nañ lan mooy li war ci masala mi waaye daanaka mooy doon suñu bind faf mooy doon suñu bind faf waaw ndax leçon bi ñu waajoon ba doon ko waaj a wàccee dañoo gis ne bu ñu ko indee day xaw a juyoog lii ñu faf def lii muy bind bi ngir leeral yi ñu bëgg a leeral leera ci nañ insha allah waaw ñuy wax ne tariqa bii di ab tariqatu tijaaniya al muhammadiyatu أحمدية الإبراهيمية الحنيفية طريقة بي يننت صلى الله عليه وسلم موكو جخ سيدنا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه gannaaw bi mu ko ko joxee ba noppi keneen ku mën a doon amul keneen ku mas a taxaw woote ci ñi am amee tariqa amu ci kenn ku mas a taxaw woote ne wirdi wi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon sayidna cheikh man itam jox nañ ma wirdu woowu déedéet loolu kenn wooteegu ko du ci lu ñuy wax du ci luñ bind loolu defe naa leer na ma baamuwaat ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox sayidna cheikh sayidna cheikh wax ni ndax wax na ko sax waaw moom sayidna cheikh wax na ko waaw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko jox ci lu dul ay nelaw wax ne tariq tariquna tariqu mahdi lfadli أعطاها لي صلى الله عليه وسلم منه إلي من غير واسطة yaqadatan la manaama loolu la wax dafa wax ne sunu tariqa bi tariqa ngëneel la mooy jaana xayrun amimun hibatan duuna imtihaani duuna imtihaani aw yiw la woo xam ne du ñun ñoo def effort yàlla jox ñu ko yàlla moo ko indi rek ci ngëneelam moo tax mu ne tariqa la boo xam ne mahdul fadli la ngeenel kese fadlun xaalisum min allah subhanahu wa taala lolou la mune a'taha li sallallahu alayhi wa sallam mune ne bi sallallahu alayhi wa sallam momako jox minhu ilayya mu jóge ci mom ñëw ci man min ghayri wasifatin ci lu ab diggal amul ku dox ci sama digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bam makoy jox mi ngi ma jox yaqadatan la manaama maa ngi ne kew ànd ak sama xel janoog samay bët janoog moom nii muy mu jox ma lim ma jox ne ma laa minnata li maxluqin alayk ne ko anta waladi wa anta waarisi dégg nga loolu gannaaw bi ko sayidna cheikh waxee ak léegi ak fii ma toog di wax nii amul benn waliyu bu amee tariqa bu masa woote ne lool yi yonent bi jox naa Cheikh man Seydina Cheikh jox na ma ko loolu amul kon nag kenn mënula joxe ndigal ci wirdu woowu ku dul Seydina Cheikh walla ku mu jox ndigal ci nga joxe ci ndigal ku Seydina Cheikh jox ndigal kooko kum jox ndigal kooko kum jox ndigal kooko kum jox ndigal lu càll léegi gudd gudd bu matoon junniy nit itam junneel ba bu la mayee wird mook Seydina Cheikh may la wird ñooyam ci làq gi ngay làq ngëneel gi wante nag amul weneen yoon wu waay mën a jaare ba am al alwirdu tijaani wudul ci yoonu Cheikh Ahmad Tijaani Sharif radiallahu taala anhu moo tax Sëriñ Haadi Touré radiallahu anhu wax ni sunu yoon ku koy sóobu bul bàyyi bul ziyaare kudul nun te it la doy loolu la wax Sëriñ Haadi Touré sunu yoon ku koy sóobu bul bàyyi bul ziyaare ku dul nun te nan la doy même waliyu bi bokkul ci tariqa bi waliyu bi bokkul ci tariqa bi dañ lay tere nga ziyaare ko ziyaare ak istimdaad te ki dog euh, maanaam ki nga xam ne dafa xàcc ci tariqa Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu amul beneen waliyu amul beneen waliyu bu ko mën a fat amul beneen waliyu bu ko mën a làq amul beneen waliyu bu ko mën a bu ko mën a rawale moo tax euh, am na bayit bu muy waxee ne soo jëlee wirdu yi sa bàyyi ko am na fu muy wax ne loo falang-falang dana ñëw ndeen dawoo fabaati ko waaw maanaam képp koo xam ne jàpp nga wirdu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ba xëy ba ko xëy xëy rek ba ko moo xam da koo bàyyi jàppoo beneen tariqa wala da koo bàyyi wuti beneen tariqa amul beneen tariqa bu la mën a rawale amul beneen waliyu wu mën a rawale alku rek moo tax gis nañ fi ku jàpp tariqa bi ba bàyyi ko eh, bi muy bi muy faatu du doon mbaw mbaw comme xaj mbaw comme xaj moo tax mësuma gis ku mas jàpp wirdu wi bayiko ba nopi wolbeuti ku jàpp amul amul mu wax ne nak mom sayyidna cheikh radiyallahu anhu wax ne tabauna muhammadi كل من أخذ وردنا ينزل عليه وتحصل له الشفاعة في الحين ولوالديه من ينسن طابعه ñun sunu tampon wu tariqa muhammadi la loolu yombul taabax boo xam ne muhammadi la gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee shari'am dafa nasaxal mboolem shari'a yi ndax dafa nekk shari'a muhammadiya mu ne la ñun sunu sunu sunu taaba muhammadi képp koo xam ne jël nga sunu wird képp koo xam ne jël nga sunu wird paabax boobu day wàcc ci sa kaw te paabax boobu bu wàccee ci sa kaw rek dangay ngay daal di làq rammuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam set fa nga jële wirdu wa say ñaari wayjur foofa la ñuy ah, foofa la ñuy làqee ñoom itam seenuk ramm maanaam paabax bi moo lay suub nga nekk muhammadiyan moo tax fi nga toog jataay bi nga toog jël fi wird bu la Seydina Cheikh doon jaay junniy waliyu yu mat la ñuy teg ngay door a tolloog ñoom moo tax ab nen fi nun la di xaymaam moo di alfu waliyu moo kon lu ñuy xame xaymay cuuju tiijaan yi sëriñ Babacar Si sama turandoo wax ni fa baydatuhu tubaau axi bi alfin fa maa lil farqi fii kalaamu boobu moo gën a jeex sax boobu wax joojoo gën a jotal ne tijani bi amul fatxu waaye jël na wirdu wi nga xam ne dugg na ci tariqa bi nga xam ne taabacuha muhammadiya taabacuha muhammadiy fa mu jële wird taabi taabac bi wàcc ci kawam nee na amagul fatxu sax mais tubaacu axi bi alfin mu ne kooku junni waliyu yu fellul dara yu mat sëkk lañ koy lañ koy weccee ñu ne bu amee fatxu nag mu ne fama lil farxi fii bayun kalaamu waaw mu ne cuuj bi kenn du wax jëm ca kenn du wax jëm ca xam nga léeg nga romb loo xam ne doo ko waxaale benn waay bi yam ci toll ci sareetu mbaam da ngeen ko fekk muy waxaale kat kat du ko def ndax amul njëgam xam na ne amul njëgam waaw mbir dana cher ba ñàkk da ñàkk njëgam dana tax doo ko xalaata waxaale sax moo tax mu ne famaanil farxi fii bay an kalaamu kenn xalaatu la waxaale sax tuuj ba kon ab nen fi nun la di xëy maam moo di alfu wali ma kon nu nuy xame kon ma kon nu nuy xame xëy may cuuji tijaani parce que paabax bi ci boppam mooy muhammad yi fi nga toog jël wird laata ngay jóge fi nga toog say ñaari way jur dugal nga leen ci ràmmug yonent bi su ki lay jox wird su paree rek taabax bi wàcc taabax boobu moo lay def la muhammadiya kooku sëriñ bi kenn du ko kenn du ko kenn du ko tëkkaleeg tëkkaleeg leneen wax dëgg yàlla mu dellu wax moom Seydina Cheikh wax ne taabauna yanzilu ala kulli taaba wala yanzilu taabaun alayhi mu ne ñun sunu tampon mooy wàcc ci tampon bu mu mën a doon nasaxal ko waaye beneen du wàcc ci kawam loolu moo tax kenn mënul a génn ci tariqa bi di baaxewaat ci beneen tariqa mënul nekk kenn mënul a génn ci tariqa bi di baaxewaat ci beneen tariqa loolu mënul nekk moo tax booy jël wirdu ci tariqa bi booy jël wirdu tariqa bi fekk yow yaa ngi woon ak benn wir beneen weneen wirdu masalan yow ab chazili nga woon wala ab qadiri nga woon wala ab murid yi nga woon wala leneen nga woon beneen ci beneen tariqa nga nekkoon nga ñëw ne damay jël damay jël wird wirdu tariqa bi ki lay jox wird muqaddam bi lay jox wird daf lay wax ni la tariqa bii kat kenn du ko booleek beneen tariqa su fekkee da ngaa nekk ci beneen tariqa boo xam ne nekk ca moo la gënal tariqa yépp ca yàlla lañ jëm defal ci sa tariqa boobu su fekkee nag gënalu la boo bàyyee tariqa boobu soo ñëwee fii Cheikh Tidiane Chérif garanti la waye mom ku baye tarixam ken munu la garanti rahma an fil munkirin ku baye tarixam ken munu la garanti lol la wax mais e fekku ñu ci mbindu al imaamu rafa'i wala ci ab tariqatu naqshbandiya ñu wax ne ku baye sen wirdi ken munu leena leen garanti mais bi nak moom ci tariqa bi lañ koy fek ñu wax ko mu leer nañ kon ku bàyyi wirdu sayidna cheikh ahmad tijani sharif radiallahu anhu beneen tariqa du la mën a garanti beneen waliyu du la mën a garanti kenn du la mën a làq te kenn mënu laa tàgg ba doo tawte moo tax mu ne taabauna muhammadi sunu taaba muhammadi la yanzilu ala kulli taaba ci beneen wax ba mu ne dafay wàcc ci طابع بنن تامبو بوم مانا دون سونو تامبو داف تي واتش نفخال كو وايي سونو سونو سونو طابع بنن طابع دو واتش تي كو لولو ليرنا لولو ليرنا مو وخني طريقتنا تنسخ جميع الطرق وتبطلها ولا تدخل طريق على طريقنا من سنو طريقه بي سيدنا الشيخ ما يوخ day nasaxal mbooleem tariqa yi di ko neenal waaye beneen tariqa mënula dugg ci sunu tariqa loolu moo tax kenn mënu koo booleeg beneen tariqa kenn mënu koo booleeg beneen tariqa kon wirdu tariqa bi kenn rek moo la ko mën a jox ku bokk ci tariqa bi te am ndigal ci joxe wird moo tax ki bokk ci tariqa bi ki bokk ci tariqa bi di ab tijaani su amul ijaaza am ndigalal maye wird su maye wird du ci tariqa bi te tàng-tàng la te kam maye doo doo am dara su maye wird rek moom day dox ci tariqa bi noonu la dem waa léegi bu fekkee ne ki bokk ci tariqa bi su mayee wird du dox ci tarixa bi mais ku bokkul ci tarixa bi naka nga mën a mayee wirdu tarixa bi loolu munu nekk te ki nekk ci tarixa bi sax pour ñi jox ko ijaaza mu mën a mayee wird sañ a mayee wird ca tarixa bi ay charte lañ teg bokk na ca charte ya moom il faut mu am ahliya bi ba noppi il faut mu am alluwa ju méngoog ijaaza bañ koy jox am jikko ju méngoog ijaaza bañ koy jox mais day bokk ci tariqa bi ba noppi mais ku bokkul ci tari dama jàngal surutul muqaddam sifaatul muqaddam mais koo xam ne bokkoo ci tariqa bi yow mënoo maye wirdi te man xamuma ci taarix ku bokkul ci tariqa bi di ko maye xanaa lu dul ay nettali yoo xam ne amul cëslaay waaw nettali yoo xam ne amul cëslaay سيدنا الشيخ قال له طائفة من أصحابنا لو اجتمع أكابر أقطاب هذه الأمة ما وزنوا شعرة من بحر أحدهم دفع وحني سنو سنو غاني سنو غاني تي سنو طريقة بي أمنا تي نيو خمنا بني بولي وان أقطابي أقطابي يقول بني لين بولي وان دندل لين نيوم la ñu am nee na aqta bi duñu duñu duñu duñu màndaxe luy tolloog sax luy tollook genn kawar sëriñ bi pour wax la ni yooyu yëpp boo ko boolee da ngay xam ne tariqa bii dee su ko booleeg beneen ku nekk ci beneen tariqa booba doy la da nga cay nekk sa sellal waaye mënoo nekk ci beneen tariqa nekk ci tariqa bii nekk ci tariqa bii nekk ci beneen tariqa loolu mënul nekk moo tax boo demee ci charte yi charte tariqa bi parce que masala mu ñëw nag da nga koy gaaral ci charte tariqa bi da nga fay fekk mu wax ne bokku na ci charte yi nga xam ñoy tax nga def ci tariqa bi ba faw mooy linfiraadu bi hadihi tariqa tuula alxayaati fala yujmacu baynaha wa bayna gayriha min alturuq mooy da ngay wéetoo tariqa bii sa girub dund fala yujmacu baynaha wa bayna gayriha min alturuq deefu ko booleeg beneen tariqa ci tariqa yi da ngay wéetoo tariqa bii sa girub dund te doo ko booleeg beneen tariqa bi ayi xaalin min al axwaal nag bi ayi xaalin min al axwaal amul nenn nu mën a demee ba tax nga di ko boole loolu loolu defe naa ne leer na ñu tegal la ci adamu ziyaarati ayi waliyin gayri tijaani ihsan hayyan kaana aw maytan ziyaaratu istimdaad wali boo xam ne bokkul ci tariqa bi te bokkul ci sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere nañ la nga ziyaara ko ziyaaratu istimdaad moo xam wali yoo dafa mi ngi dund wala wali yoo dund dundul kon bu ñu delluwaatee ci kaw ñu seetaat déglu teewluwaat bu baax wax yooyu Seydina Cheikh wax dañuy xam ne euh, euh, rek ni ñu ko waxee noonu la demee waaw vidéo bi ñu seetaan li ñu wax noonu nekkul ndax wirdu euh, Seydina Cheikh yonent bi Cheikh la ko jox jox ko keneen am na walu yi am na yeneen i awliya yoo xam ne yonent bi jox na leen waaye wii wirdu wii moom Cheikh la ko jox اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطعي بمذون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه شيخ رجل لك أنت بجاه صلى الله عليه وسلم moom rek la ko yonent bi jox kon keneen mënu cee joxe ndigal ba noppi yonent bi moo ko jox ma jox lako lolou munu nek parce que li cheikh la ko yonent bi jox mom kay ku ci joxe ndigal càllale ga buñ ko topé day jaar ci sayyidna cheikh ahmed al tidiane te charte joxe ci ndigal mi faw sayyidna cheikh mo la ci jox ndigal lolou nak waxuñu ko ngir gotti akku ben jam ci jaami yàlla yi ndax dafa bok ci charte tariqa bi batay tey التودد إلى خلق الله sopp mbindeefi yàlla yi loolu ci charte yi la bokk dafa bokk ci charte yi ba tey bañ a noonu wali yàlla yi loola dafa bokk ci charte yi weddiwuñ benn ngëneel bu yàlla defal benn wali yoom weddiwuñ benn may bu yàlla may benn wali yoom waaye nag wirdi wii moom yonent bi Seydina Cheikh la ko jox tariqa bi itam ku ci bokkul mënu koo gën a xam ki ci bokk jàng ko ki bokk ci tariqa bi sopp ko gëm ko jàng ko ba xam ko ku ci bokkul bëgg koo gën a xam ku ci bokk mënta nekk te itam wirdu tariqa bi ku bokk ci tariqa bi rek moo ko mën a joxe te ñi bokk ci tariqa bi ñëpp mënuñu koo joxe ñi bokk ci tariqa bi ñëpp mënuñu koo joxe ñi am ndigalal joxe ko ñoo ko mën a joxe te ñi jox ijaaza ñëpp seen ijaaza duñu ko nangu lu dul ne day fekk ahliya bi ñu am ko kon charte yooyu charte yooyu charte yooyu leer na waaw waaw charte yooyu leer na waaw kon nag euh, ku war cheikhana gën ji mbindeef nga war ku war gën ji mbindeef bu layee du yey waaw ku war cheikhana gën ji mbindeef la war ku war gën ji mbindeef bu layee du yey bu xiinee du tawlu su tawloo du ñorlu su ñorloo du woomal ci yi mbay loolu mooy li ci kon nag ñi ngi taxawee foofu di jéglu bu baax euh, mbokk yi xëy na yi ci def yëpp bu gaañu ñëwee mottali ko ñu ngi leen di balwaq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi ma jéem kañ boroomi may yu rëy ya Cheikh Tidiane sëtu Yonent Cherif mayam jërëy naa. tolloo ci juróom ñaari at yu maat la mokkal. alquran Seexu Tijaan Sëriif mayam waaw wallaay bismillaahi ma jéem kañu boroomi may jërëya Seexu Tijaan sëkk yoon nañu Sëriif mayam jërëy naa ñaar ko fekk benn at Seex Tijaan di foore mboolem xeeti fu nu yépp